ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew celer ga mooy ci maamam ju baax ja ismaho moo de a dana turam mi leer ga jógee ca kooke dag ma li suma nisaarun mu gisal ma ñeenti maam mi Ilias mu dari kaatun lool nga jógee ca ñooñee suma gaayo baax yëlee da maam mi suma kinaanata nadarun leer garoofu Maalik leer ga jógee ca demoroof fi rimuy rahimi fa qaalibuna kahab leera roofu murratal mi génnee ca demoroofi maami mustafa kilaami doomam jeñuy wax xusay siif ko joxu ko abdul manaa mu jox leer ga haasimi na ba ci maami sakare si yàgg na léegi tàkk na ëf fa saybata am de haba dala e joro kamam mi laxa jagaw mustafa abi muhammadi waaw waaw minal baqi bila bo yenene yayramo ñayramo bayero aqiyato aw góor yawmal qiyamati foopito lu dañu la xamme keroog ba yàlla wàccee jantu yuru ye dee baax keroog la yaay di wax doon ne fay ma summa mi keroog danañu la ràññee ndax yaa deram mu say gaay yonent yi ak anbiyaa yi saape ngay imaam mi Mustafa di Muhammadina noon badiihun minal baax bi laa xadame yomaa gi mooy saxal gàncax moo di leen meññat wa yow la yow mi fanaana mandari pom yow yaa di mango yow yaa waral ñu meññal orange ak dimba ak xalam mi njëriñ yëguy ni dimb yi ak tàndarma yaa waral meññatam wa ak renam mi haqiqatul mustafa di muhammadina min al baax bila adami yonent bi moo diina jiida diina ji diina ji mooy diina yërmaan damañu ko xàmmee li tax wax ko mooy saayam Mustafa doxee leer ca jëmmi maamam ja dimbalante duñu yërëm mi jamaana jooje ku am sa doom mu daa jël jigéen gas dugal ca ba dëgg fex ma ku yàlla tàgg saw làmmiñ la wax ne yow ma yanti ko xannil xawaata mu ngi ci saaru najmi xaqiqatul Mustafa di Muhammadina jikkoon ja ay dan borom bi nee na Mustafa wa innaka laa la yonent xulqil asimi xaqiqatul mustafa ali muhammadi waaw waaw noon badiwa min al baqi bila adami sayyiduna muhammad lay jàmm tey ma way borom leer dafa am borom moom xaaro rek ma jaar feneen coy na leen walaay ànd leen walaay sayyiduna muhammad mooy sayyidu saadaati كلهم محمد موي جامع الجيس وابتالي كصب سيدنا محمد دفال ني ني ماغال كو نداو كو ندا بورام دارو موي وي نين سيدنا محمد موي صافع الاخيار جملتهم محمد لابس التقوى وإكمالي سيدنا محمد طيب صافي سما إله محمد فاهر القلب وأهمال محمد نور أكوان وفوسهم محمد فاتع القلق وأرسال محمد أفضل الرسل وقاتمهم محمد كامل الحلم وأفحال كسب سيدنا محمد فالنين يمدلكو borom daaru salaam bay basak habibu mooy way rasulallaahi borom daaru salaam neenal sayiduna muhammad mahdinul anwaari jaamiho haye muhammad muhmidul kufri wa idolaali sayiduna muhammad ndaw ko nda borom daaru salaam neenal حامل الدين وحافظه محمد مصلح لكل ابتال سيدنا محمد برم دار السلام نينا مصرب الرسل بلا رياب محمد ادب القلق الاجلال محمد اول الرسل واخرهم محمد xaajibul kawni li ifdaali kookoy sayyiduna muhammad rasulullahi ndaw ku ndaa borom daaru moo tax moo dajiite kuy waliyu moo di wur kojug sunniyu moo du mustafa nabiyu jaw ni damba mooy ku sopp si sidaa joomar ndaw defal ni ñu màggal ko faarox mi toog ba daa di jël loxoom ba ci doojooram gestoo daqol ci genn wetam noonee la daan giseeg Rasuul moso daqol ba ngay janoog ndaw ku ndaa borom daaru salaam mosu daqool ba ngay janoo ak feri bëtam ba ngir ay yaa kër saam nga comme gu sayiduna Usmaan mi doon gorob rasul xamoon na yar te woon na ne yàllaa ko yar duhul mbindéef te yàlla bur bi képp kum yar ngay ku baax mu lay xelal ndaw ko ndaa bay basak habibu su doon ginaar da ele su doon ne fas da naaru góor su doon ne jaan la moo da ninke nanka nañ ko di jëfal bisab juma saa yu jotaan ndaw ko ndaa ku sopp sax seerañu man màggal ko bisab joteen leeram nga fees ko muy caneer bam daagu jëm ca baram soo gaaw ta wax ne mooy rasul rasulullahi moom la def xaritu benn bakkanam faaroox mbiram mi waar nañu ndax yàlla rek la daan jëfal daaru salaam la ndam la xoon ay rab yàlla daan fa jur faaroxa toj xàll ba duy fa leeri yàlla muy ndimbal gaynde la xoon ci biir dundam faarox mbiram mi waar na ma ndax yàlla rek la daan jëfal yónnentu bee ko daan xamal xamoon na xam-xamu bayaan xamoon na xam-xamu hikam ndaw kaang la xoon fooda la xoon xaafis la moo daan xamal maa ngi leen di bàyyi foofu ndax say ko xamar mbiram du jeex alhamdulillahi rabbil yal nañu leen yàgg jëfal allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad bi jaay faro amina amina mu dal yawmal qiyaame ñu def ay kuréel sa baay la ñu fa yaakaar te fi dono bu yawmal ñu def ñaari minute rek ñaari minute rek yow la ñu fa yaakaar waaye xalaat leen ku dee fekki bàyyam faroo bu lay sargalil fokk mu laaj asakanam bu yawmal xiyaam ñu defa ay kuréel samaam lañu fa yaakaar fa yaa fi waaye xalaat leen ku dee fekki bàyyam faroo bu lay sargalil fokk mu laaj asakanam su fekkee nga def say wareef ci ñoñam mu def ko ka fa mu denc awa asakanam nit ku nekk na mel noona lay jëfee nii nga def jumaa ji nga mel nañu ko xam bu yow mal ay kuréel waaye fa wallaahi yaa ba am njëriñ tabee xam jëfe basi ci lii moom la em bu ñu def ay kuréel yeesal nga jumaa ji yeesal néeg sa baay yeesal néeg yi soxna yi yaa rafet ci jëf bu yow mal yaamee ñu dema ay kuréel sa baay la ñu fa yaakaar te yaa fiy dono mbiram yàlla nii rek la boo tàmbalee bu lee yox yoxi màgg daldi jëm kanam bu yowmal qiyaame ñu dema ay kuréel sabay lan fa yaakaar te yaa dono benn néeg ñaari néeg ñetti néeg tey ñeenten baa ngi nii kon jaajëf bas ci yow bay ne koo xam ne sax man ngay hijji boole war nga doy baay turam wi rek doy na la sam baay Mansoor baay Mansoor taaram nga tey moo tey bu kaala woo tabaangaay teg bàyyi Mansoor wala aat wala mawjuudun wala liyamin lam yalqo laaw mislu bàyyi Mansoor bàyyi Mansoor alam nga jeekala taalam nga bilaay moo tey bu kaala woo tabaangaay teg bàyyi Mansoor dama ne wala li si maali la sarqan wala maraban wala li mumkini yahlu bàyyi Mansoor

taaram nga bilaay moote bu kaaloo tafaa ngay teg bàyyi Mansoor ña ahlu samaawaati tatagal nañ bàyyi murtala ñu ko nan maraban jërëjëf bàyyi Mansoor ndax ñu xeeb ñu ñun ñi boo gisee mu di dem kum dajet may la dépasse ngëptu leen fa rox kum ci raw nga perta déglu leen ji la wax yéen ñi toog di karta nii la ñuy defati jéggi song ay jooy seyxu ndaw ku mu raw réccu ngak dëkkeek jooy koo ñaqal faaro doo ko réccu dunya koo ñaqal doomam doo ko réccu dunya koo ñaqal sëtamit doo ko réccu dunya aljanna da sa kër xam te njende mbay wayal faarox yow mi ma xamam ay zëtam di la laaj luy melaw sunuy maam am na man lu ma xam mbir yu ne ci seen maam jaaduwul da ko yooya day karamam moo ta def lu ñu sib moo ta dégg yahaay moo ta xam ku ko bañ kuy jullit mu def waay doy lu woon kum dajeen mu ngay ree moo taxe wasagam daanu mer daa daan ree teggiin ji ci moom kersa moom la muuroo du layal aji laaj loo fekk sa muur moom daa wax ñu ne ah moom def ñu naan déet moo xamoon warafa moom moo daa jëw mbindeef moom daawu jaay darajaam ngir xaalal dawut koom kenn du xam na xaram walla mbég mu koy sóor ak metti du ko jot muy ko tiisu muy góor moom waxtu du ko faat nit ko diine moom ndaw jàpp ak julli rek muy muraadoom ndaw jàpp ak julli rek jàng mooy muraadoom ndaw jàpp ak julli rek jàng mooy ndaw jàpp ak julli rek jàng mooy muraadoom am tayal ak jaamu yàlla buur liggéeyal boromam li sax te moo wóor moo da def lu ñu moo da dégg yaay moo da ku ko bañ kuy jullit moo def waay doy lu bëgg nit kum dajet moo ngay moo da xew wasagam daanu mer da daan ree teg ji moom kersa moom la muuroo du layal aji laaj loo fa fekk muur moo da wax ñu ne ah, moo da def ñu naan moo xamoon wara fa ak dundam da daan moo daa mooy boromam moo da jëw mbindeef moom daawu jaay darajaam ngir da hut kenn du xam na xaram wala mbég mu koy sóor ak métti du ko jot muy ko tiisu mooy moom waxtu du ko faat ko xam diine moom ndaw jàpp ak julli rek jàng mooy moo daam tayal ak jaamu yàlla ki buur liggéeyal boromam li la sax te mu wóor ba mu doy moom la def lu juyoog sëriya xaqiqa bu mu fi tollu day foog moom xolam dafa seet fañ ko foofu ba weex def jëlee ba mu xeet lu waxaan dana neex kayit jeex wala ay melum bu filim moo jéem a xas géej manta yàgg ba jeex wala daawule bañ a fay moo da fay yo ak tooñ moo da jaay dooleeg barke tax ba muy tooñ koo xamoon fulla la def defam fa lool koo tekki takku woon daaw wax mu xiir lool njëriñam mu mel ni bu taw tib suuf day wari lu ne dem gënoo xam ci kaw suuf may melal bind ba moom fa jag taxawaay gàttu doon gudd doon ndama jekk waajaay tuuti wul rëy doon ndaw jëmmam ja jeg lool moom bopp ba dafa jag ba dee rëy te weex lool ay bëtam dafa xam xef yu jekk xam heen yoo jekk xam heen moom bakkan ba ngay seen ne ko doon ku di xëj daw tiit fa jàmbaar ak wegel gi ci nit ku ñuul te xam taar ko amoon jëbin la am sikkiñ te xam faas foo ko seen nga ne ndax moo di seex borom faas moom rin ko lasu doon doo ko seen ne moo deex moom di rëb dunda ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew yi wala bitim réew